li nga laaj lu am solo la parce que loolu laa doon xaar ndax moom bu ma toogee te laaj ñu si tubaab bi ma am <laughs> feex parce que xam nga aa ngi sant sëriñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal la porte parole sëriñ Bassirou Abdou Khadir di sant population bu Touba ndax mm. bu ma dee toog ci plateau yi wala may défendre assemblée mm. ñoom ñoo ma tànn pour ma nekk député Touba tax. Mhm. loolu am na sax ñoo xam ne classe bu bëgguñu sax may wax loolu. moom Birame la fay bëgguñu sax may wax naan di tudd Touba parce que nee naa ne man député Touba laa ay ñoom. <laughs> da nga nekk député Sénégal doo ko déglu ma ne <laughs> moo tax mënuma fay waa Touba. gis nga nit bu fekkente ni da delloo njukkal war nga dellu si population njukkal rawat na foofu. Mhm. ndax falu ci opposition ak départemental dafa jafe. te def naa ko ñaari yoon. Mhm. ci liste département man boog mënu ma leen delloo mënu leen fàtte mënu ma leen a delloo fay lu dul. Mm. di leen wax seen soxla. Mm. Touba situation bi ñu doon dund ci nguuru Macky Sall bu raw boobu la ñuy dund si nguuru Diomaye Faye. instant bi mm. instant bi may wax ngi doog a ñëw de. dama ne moom la ñuy dund si ñetti weer yi moom moom la fi fekk. moom la fekk. waaw ñu na di ko dund. di xaar ay changement te gisagoon ko. parce que fi nga xamante ni nag mooy exemple mooy du wër Touba dafa am benn napp euh, benn napp boo xamante ni dafa am foofu mhm. boo xamante ni même cérémonie officielle fi ñu kër nga xamante mooy kër sëñ Touba sax day am ndox mhm. fan yi def nañ fi téeméeri million te loolu mhm. réglé wut te loolu état moo ko war réglé te sëriñ Touba du taxaw di ñaan état état moo war a xam la mu war a def si biir dëkk mu def ko te bul fàtte ni population bu Touba ñëpp dañoo jógoon maase wooteel Diomaye Faye pour mu nekk président la pour changement doon séntu am na mais nan delloo Touba njukkal waxuma la sax maam ñàkk gin ñàkk jël doomu Touba ci ñuy doxal réew mi pour wax ne ni waa doomu Touba nee na ñoom comme doomu Touba jàngul comme ni Macky Sall doon wax naan waa Touba jàngul leen mën a jël Birane mii ni wax ni comme jànguma Touba xëy na waruma def nangam loolu mooy wane ne Sénégal foofu lay mën a tàmbalee pertement pour yi parce que ñu rës yéen am moo ëpp njàng Touba kon loolu moo lay wane la ba tey am nañ ay jafe-jafe mooy doomu Touba yi dëkk tuubaa dañ leen war a dugal ci li nga xam mooy doxalinu réew mi te gis naa ne jëlagoon fa kenn ñaareel bi ndaw ña fa nekk doon maanaam jaayam seen doole ba tey jii maanaam amu si kenn ku fa am liggéey te ñoo nekk fii ci marché ambulant yi Colobane ak Kër masaar yëpp te ñu leen fay jëlee ak di toroxal askan bi loolu d'accorduma si ndax kenn nekkul Touba Dakar dëkk fii daanaka ñu si bari di xëy foofu ñu si bare bari ci àll bi la ñuy jógee ak bawal ñëw di di daan seen doole jigéen ña fa nekk nga xamante ne dañuy xëy di dem di xolli gerte lu nekk ñu koy def ba tey kenn koo xamante ne am nga ay financement wala sax jigéen ñi wax ak yow ministre de la femme sax tegu fa tànkam loolu bu fekkente ni assainissement bi defoon nañ ko ñu tàmbali woon ko di nga dem Kër Ñang dem guy guy mindi ñëw xayri gi ma dëkk mooy côté guy sew assainissement bi defuñ fa dara tëli yi nga xam ne mooy tëlu yàqu yi ba léegi tàmbalee guñ ko hmm. bërki démb xanaa am na benn tëli boo xam ne tàmbalee woon nañ ko depuis juróom benn weer tamloo nañ ko defaraat mooy bi si côté policier bi jaar sama côté kër kooku ñu ngi sant parce que loolu procès la woon boo xamante ni ñun ñoo ko xeexoon ba loolu parce boo xoolee foofu màggal gi jot côté boobu yëpp day taa ñu ngi koy defaraat mais tëli yi nga xam ne moo jógee autoroute bi muy jaar guy yi sew ci guy jëm tuubaa foofu yëpp fu am ay jafe-jafe ba kër ñang corniche bi kenn mënut a jaar foofu mhm. kon état war na jël ay responsable màggal goo xam ne li si matul ñaari weer. ñoom moom dafa métti fa ngay jaar di dem. waaw <laughs> matul ñaari weer màggal état war na jël ay responsabilité nag. ñun mos nañu engagé wu pour defar Touba ci li nga xam moom la waa Touba soxla. Mhm. ndox mi ñuy naan am na ay jafe-jafe parce que ndox mi doyut ba pare napp bi baaxul. ñu li ñu proposé woon mooy dañoo waxoon ni. comme Serigne taxaa bëggoon na ni Lac de Guiers <laughs> Lac de Guiers la bëgg mu ñëw Touba. Mhm. sëñ Mountakha moo ko waxoon te bëgg-bëgg sëñ Tuubaa dafa raam Amadou Ba wax ne dana ko def bu gagné woon am nañ projet bi 600 milliards la mi ngi ñun am nañ bailleur yi. Hmm. bu ñu ko laajee ñii ñu jox leen ko ñuy nit ñu Touba ndox mu neex. ok fi parce que ñu ñu ko financé woon ñun Touba lañ bëgg. Ah. tey premier premier ministre Amadou Ba ni ko léegi projet bi nga yoroon pour Touba ak financement yi jox ñu ko ñu dugg ko Touba mooy lañ jëlal. Ah. ñaareel bi ah. moo jëm bi nga xam mooy dañ ko war a sens état moo ko mën a def. assainissement bi ak ndox mi naan. Hmm. parce que bi boo xoolee maanaam tuyaux yi dafa xumaat weñ la te 1960 ba léegi mi ngi foofu noonu. Hmm. dañ ko war a dindi def si yeneen tuyaux. Hmm. gasi ay forage mu ñëw parce que Touba bu amee 35 forage yoo xamante ni maanaam jamono Abdoulaye Wade ba léegi la nguur gi gësagu fa nag benn forage. ñu ngi doog a ñëw waaye man dama wax ni sëñ Mountakha man mii di wax yow si yaakaar sëñ Tuubaa bu ñu santoon sax ñu gas forage yi. dëgg la ah, parce man rek mën naa gas ñaari forage même bu ñu amee bu ñu amee. même bu ñu amee il il faut état dugal si loxoom état la ñuy xaar mu mm-hmm. accompagne ñu. Mm-hmm. ndax man mu ma nangu. yow tey nga léegi nga doog a toog Bassirou Diomaye Faye am na yéene mm. Ousmane Sonko am na yéene mais ministre yi mënuñu